fekke nañ ko daaw teewe ren donc dañuy ñaanal mbokk julit yëpp ñëpp teewee ko déwén te kenn bañ a uute euh, di ci sant yàlla bu baax a baax parce que lii dafa bokk ci mandarga wu Sénégal ndaxte dañu koy faral di wax naan ci wàllu diine Sénégal amul fenn fu mu war a jële ji ndax li mu soxla ci diine lépp a ngi fii donc kooku dañu koy sant yàlla teg sunu tànk foofu pour daal di rafetlu kaddu yi nga xam ne dégg nañ ko fi muy kaddu yoo xam ne aar nañ ñu muy kaddu yoo xam ne jox nañ ay tegtal ci anam yi nga xam ne tey jii moo ëlëm àddina benn bi nekk wàllu terrorisme ñu jot ci ay tegtal ci ni ñu war a taxawee ndaxte amul keneen ku ñu war a tegtal diine ni ñu ko sunu maam yi bàyyi leen te jàngale ñu ko noonu lañ ci war a wéyee ci li ñu dégg ci cent vingt cent trente-huitième bi it am fi kaddu yi am solo. muy kaddu lutte contre la corruption mu nekk kaddu yoo xam ne mooy cislaayu diine yëpp waye dëppoo ak li nga xamni moy fondement yi président Macky Sall tek perspective de développement au Sénégal parce que boko ko ci PSE bo génné ci transformation structurelle génné ci inclusion sociale gouvernance démocratie moy kenou bi mais daf ko positionné mu nek matrice centrale di li ñi naté toute l'action publique politique du conflit politique waxtaan la bam consensus yéen ñëpp ay seede ngeen euh, woote waxtaan bare na ci réew mi ci ay président Macky Sall wuy si bi néew na lool ba lolou taxna bu amee ñu wuy si ba ñu am lo xamni ne nañ ko ba mu nekk mbir damay fatali ni 2016 ci li nga xamni mo nekk ci réew mi muy walu parrainage ñi andone ñëpp nekk ci opposition ñi ci ëpp D'accord, nous ci ñu amal ko yaatal ko 1 2016 nak ak bu nous avons laaj mu am na mbir nous ni war démocratie parce que démocratie bu yaatal ak ak yelleefu citoyen mi ngi kanam Nous avons citoyens yi pouvoir yaa ngi avancé démocratie bu yemale ay citoyen ci candidature kanam parrainage nag bokk na ci li nga xam ni filtre la réew yu mag yam ñu ngi koy def Sénégal attan na ko mën na ko. 23 juin avenir u sénégalais yi moo nekkoon enjeu bëggoon nangu seen souveraineté teg fi leneen 19 avril du avenir u sénégalais yi lenn moo fi nekk citoyen la ñuy delloo seen àq ak seen yelleef régler sunu démocratie régler sunu vie politique.